sëriñ mbàkke buso sëriñ mbàkke buso mi ngi gane àdduna ci atum 1864 ci dëkk bu ñuy wax mbusoobe jolof mbusoobe jolof gi sax ci dëkk bu ñuy wax xoobe lañ ko gën a xamee mi ngi ci suuf si di jolof sëriñ mbàkke buso doomu sëriñ mbusoobe buso la mi nijaayu ko baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim waajuram wu jigéen mooy soxna maam faati balla mbàkke soxna maam faati balla mbàkke mi ak maam mor anta sali mi waajuru xaadim rasool ñoo bokk waajuru góor muy maam balla mbàkke mbàkke sëriñ mbàkke buso am na ñum bokkal kii di maam bal la mbàkke ñu ràññee ci sëriñ seexu buso mi nekkoon taawu sëriñ buso bi buso ak sëriñ masamba buso ak seen jigéen ba ku ñuy wax soxna xari buso ak moom sëriñ mbàkke buso kon ñett la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñeent bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram di sëriñ buso bi buso moo ko jàngal lii di alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal xaadim rasul muy doomu bàjjanam xaadim ginnaaw bi nag sëriñ tuuba seexul xaddiim jëloon na sëriñ mbàkke buso jox ko sàmba tukkulóor ka mu saytu lii di am njàngam ci wàllu xam-xam ginnaaw sëriñ sàmbatu tukkulóor ka sëriñ mbàkke buso ñëwaat na ci màmmoor jaara magi mag ngir mu xool fan la xam-xamam toll ci fi mu jaar ci wàllum njàng mu doog a delsiwaat nag ci loxoy ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim nekk ci ginnaawam bi sëriñ tuuba seexul xaddiim di taxawal lii di yoonu murit ci atum 1883 sëriñ mbàkke buso mi ngi woon ci loxoy ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim yoonu murit bi mu taxawee fu ne la ŋàññ yi doon jóge boole kook nag tubaab bi ak buur yi di ërtal mbooleem gaa yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba ci buur bi ñu tuddee teeñ tañoor ndax kat foofu mu nekkoon ci làmbaay sonaloon na bu baax a baax murit yi féete woon foofu ci bawal ba tax na saa su ne daana leen bunduxataal di leen dóor ak a saaga buur boobu di teeñ tañoor ki di sëriñ mbàkke bu sa bindoon na ko lettre di ko wax mu moytu baax a baax ak di bàyyi li muy def ngir toroxal gi muy toroxal muritu seexul mbay mi ñu teewlu lettre bi sëriñ mbàkke bu sa bindoon ten tanoor nekkoon ab buur bu nekkoon ci làmbaay te daa ërtal bu baax a baax képp ku mu jort ne ab murit nga alhamdulillahi allazi amara bil adli wal ihsan wa naha an zulmi wa tughyan wa salatu wa salamu ala al amiri bit taawun ala al birri wa taqwa wa naha an al ma'siyati wa tahwa muhammadin khayril bashar wa alihi wa sahbihi dawil khayr amma ba'd fa min cheikh Bousobe Mouhammad ila amanatihi qadiman wa hadisan wa ahdihi sirran wa alaniyatan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 yablughuna al-jawr wa laa tattabi' ahwaa'a qawmin alladhiina laa yarawna illa ad-dunya wa laa tattabi' zaalimiina fi zulmihim ad-dawlatu qad tastaqimu ma'a al-kufri ghaaliban wa laa yastaqimu ma'a az-zulmi daa'iman fa'lam bi anna maa waqa'a fi af'aali qawmika fi muriidi Cheikh Bamba fa fiihi zulmun kabiir idh al-muriiduuna laa yastawuuna fi ad-darajati wa ammaa Ndiaga Sarr wa amsaaluhu ka Balla Paate fi Lappe wa ghayrihim min alladhiina laa yazlamuuna fi dawlatika wa laa ya'suuna Allaah wa laa yukhaalifuuna amra shaykhihim fa darbuhum wa izlaaluhum wa akhdhu amwaalihim batilun zulmun xaraamun qawmuka yasawna fi l ard kullu man kaana muridan li cheikh bamba ida laaquuhu yuhinuunahu wa yadribuunahu wa yaxuduuna maalahu wa qaalu inna tentanoor amarna dalik bi dalik wa nahnu laa naarifuka bi zulmin wala bi idaai lmuslim wa lidalika axazana alxuzn walxawf walxurub lidalika faalam anna cheikh bamba waliyun kaamil wala yaarifu lwaliyu illa alwaliy zahidun min addunya saburun ala ada annas walakina hada alfilu laa yasbiruhu wa nahnu xifna xadabahu an allah subhanahu wa taala qaala yurwi anhu li nabiyihi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 kon loolu mooy lettre bi sëriñ mbàkke buso bindoon tentanoor ngir di ko wax mu bàyyi ërtal gi muy ërtal lii di murid yi yoonu murid wéy di taxaw sëriñ mbàkke buso wéy di ànd ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim taxawale dëkk bi di daaru salaam ginnaaw daaru salaam tuubaa ginnaaw tuubaa mbàkke baari jolof mbàkke baari jolof googu sax la fi bàyyi ko ci atum 1895 dem ci géej gi ci at moomu di atum 1895 ci la waajuru sëriñ mbàkke buso nag génn lii di àdduna di sëriñ busoo be busoo fukki fan yaak juróom-ñaar ci weer wow di weeru tabaski ci atum 1312 ci gàddaay gi mu nekkoon bisub altene di fukki fan ci mois de juin ci atum 1895 sëriñ mbàkke busoo ñàkk lii di waajur wu góor di sëriñ busoo be busoo génnuk àdduna ak sëriñ busoo be busoo doomam ji di sëriñ mbàkke busoo def na ci sax am marsiya di jooy waajuram wu wow ñu teewlu ko wuffiyal waalidu aama subba shay an izzi umrihi asax zahara yow mas nay ni li may ni ci atum bi sëriñ Touba Seexul Xaddim di dem ci géej gi mi ngi bàyyi woon sëriñ Mbàkke Buso ci dëkk bu sell bii di Touba diggante bi sëriñ Touba Seexul Xaddim demee ci géej gi lu metti moo dal kii di sëriñ Mbàkke Buso ndax këram dafa tàkk ba jeex tàkk tombeeg waajuram itam génn àdduna ci daanaka ñetti weer kiñ ko joxoon itam mu koy jàppe sëriñ ak lii di waajur itam tubaab bi teg ko loxo loolu lépp tax na mu bàyyi ko Touba dem ci dëkk bi di kër Sërif nekk ci wetu dëkk bi di Tiwaawoon fekkoon fa naar bu ñuy wax sëriñ Kumba Tayba Aydara sëriñ Kumba Tayba Aydara mi moo jur soxna Saynabu Aydara soxna Saynabu Aydara sëriñ Baara Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul moo ko dëkkoo woon mooy waajuru sëriñ Abdu Karim Mbàkke Baara ci naar boobu la sëriñ Mbàkke bu sa nekkoon ba ni sëriñ tubaa Seexul Xaadim di waaja ñibbisi ci géej gi ci at moomu sax la sanc dëkkam bii di Lasar mooy fii xalifaam bi nekk di sëriñ Ceerno bu sa Lasar ba tey 1895 bi sëriñ tuubaa seexul xaddiim demee ndar laata muy dem ci géej gi sëriñ bu buso bindoon na leetar tubaab bi di ko xamal ne kooku ngay tuumaal de liñ koy tuumaal dara wéru ci ndax moom tël tooñ te du tooñ jaamu suñu boroom rekk ak liggéeyal ko donn nag la tal waaye gaay nag def nañ ay pexe ba nar laa booleek moom waaye daal na nga xam ne lépp luñ koy tuumaal dara nekku ci ñu teeglu lettre bi sëriñ bu buso bindoon gouverneur bi ngir di ko lil amiri wala tuhib haybatuhu inna almahabata xidnul adli wassadadi wa marrixil xadd walsam turba axmusihi warxit taadduba fi maraahu wattaidi wa adidal wak xaysu najaxa muntasir walxaqu muntasirun lissaydi walxasadi inna dahinna bi xadbin ma tahda lahu sumul jibaali rawaasi ayama hadad taxribu duwarin wa illa maxsharin laa yacrifuuna siwa gisyaani masjidin aw das alwaahim walxarsi biljaradi qad aajaluhum bi tankirin ala tuhamin lam turwa illa an a'da'in lahum hasad kam sibyatin wa dawatul xadri da'i'a bi nafi shaxsin wa lam yafxal wa lam yurid illahi fattish wala tuhmil xutuuba fatan lam yaxtaru waaye tubaab bi nopp yu tëx la ko déggee ba mujj na yóbbu sëriñ bi ci géej gi ci atum 1895 googu bi sëriñ tubaa seexul xaddim demee ci géej gi nekk fa sëriñ mbàkke bu sa bindaatoon na ko baneen lettre di ko wax ne lañ jaayante woon ba nëgëni maa ngi ci duma ci jóg mukk mooy nekkub murit akub taalibe ci sa ginnaaw lépp loo loo xam ne nii itam ndigal la te nga bàyyee ma ko fi soo ñëwee doo fekk lenn lu la ci naqari ndax maa ngi ci na la leer ne daal foofu nga nekk ak fii ma nekk lu ñuy soree soree sori du ma jaawale mukk sa ndigal ñu teewlu leetar boobu ala cheikhina asil jiile bushra yabqaahu yahuddu bina aljahli wa shakl mawla salaamun wa raddun saaxaba almadha wa rida wa shawqan wa tabjilan kama huwa yarda wa baad fa yaa cheikhi wa mawlaaya faalaman bi anni ala alahdi alladi lastu ansa siwa anna dalika altayfu la yabqa ma bihi aish min al qalbi alladi shawq adna sëriñ tuuba seexul xaddim mi ngi tontu sëriñ mbàkke buso di ko wax ne li nga ma wax de nang ci sax bu ci jóg ndax noonu rek la ñu teewlu tontub seexul xaddim minni ila man maala qalbi li luqyaahu xalili anisi man radina sajaya salaamun salimun laa yubaaha tahiyatan yusayihu shawqun wa mathun adamnaahu wa baad fa inni yabna xaali wa ammati udimu allazi qad kunta tarju wa tarda laka allahu la alfa li ahadika naasiyan fala taku illa mis misla ma nahnu kunna ba tey ci géej gi laataa seexul xaddim di ñibbi siwaat Sénégal sëriñ Mbàkke Buso bindaatoon na ko baneen lettre boole kook ay addiya di ko wax ne ba nëgëni daal sama xol bi mu ngi ci yow saa su ne dama lay namm ngir xemeen téef ak cofeel gu ma am ci yow ñu teewluwaat lettre bi sëriñ Mbàkke sa bindoon sëriñ tubaat seexul xaddim bi mu nekkee ci géej gi di ko wax namm gum ko namm ak addiya yum ko boole loon jox ko ko zurnaaka yaa yaa man sabal كل أزمنة بالالتفات له حبا وما ظلما أروم منك دعاء صالحا حسنا لعله يخرج الإهلاك والظلما Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ginnaaw bu mu sante Sëriñ Mbàkke Buso gërëm ko ñaanal na ko itam ci addiya yooyu mu ko jox yónnee ko ko gërëmaale ko bu baax a baax jazaaka xayra jasaain man baran nasama xataa tahuuza maqaaman qad alaa wa sama xataa tahuuza allazi tarju wa ta'muluhu min almawaahibi qad aflaha alqasama xataa takuna imaam aljiili murtaqiyan bijaahi afdali man yabki yi wa man basala bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñibbisee ci géej gi kii di sëriñ Mbàkke Buso dem na ziyaar ji comme ni ko mag ñépp defee Seexul Xaddim àndaataan naag moom fépp fu mu nekk ba ni mu demaatee ci réew mi di gànnaar sëriñ Mbàkke Buso ma nga ca woon gànnaar 1903 kii di sëriñ Mbàkke Buso dem na gànnaar ay yoon ziyaara ji kii di sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ginnaaw 1907 ca yéen Jolof sëriñ Mbàkke Buso itam dem na ca yéen Jolof dem ziyaara ji ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul bu ñibbisee mi ngi ci dëkkam bii di Lasar am na yoon woo xam ca yéen jolof doomam sëriñ Moulay Bousso la àndaloon keroog ba ñuy dem jaar nañ ci dëkk bii di ŋayug maam Balla ziyaare maam Balla doog a maam maaram ca jolof ziyaare ko doog a dem ca yéen jolof ziyaare ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bu ñibbisee ñëwaat dëkkam bii mu sanc ci 1902 di Lasar foofu nag la toogoon di jàngale lii di xam-xam moom sëriñ Mbàkke Bousso ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kii di sëriñ Muhammadu Dem nekkoon jàngalekatu xam-xam bu mag ci njaareem jaar na sax ci ay loxoom ci jamono jooju doon jàng lii di xam-xam ginnaaw bi sax moom sëriñ mu Mouhamadou Dem moom mu sëriñ Mbàkke Buso ba na ko ci daara ji muy jàng ak di jàngale ba ni ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim soxlaa woo ko ci njaareem moom sëriñ Mouhamadou Dem kon bokk na ci ñi sëriñ Mbàkke Buso jàngal ci dëkk boobu di Lasar sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim jógee ca yéen dem njaareem ci atu 1912 ci 1912 googu la sëriñ Mbàkke Buso ñàkk taawu waajuram wa di sëriñ Seexu Buso Seexul Xaddiim wéy nekk njaareem moom nekk Lasar njaareem googu la ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim woolu woon mu ñëw mu ko doon binduloo ab lettre mu jaaleel ko kii di sëriñ Cheikh Sidiya baaba nekkoon ab naar bu nekk ci gànnaar bi mu génnee àdduna ci atum 1923 moom sëriñ Cheikh Sidiya baaba woolu woon na kii di sëriñ Mbàkke Buso ngir mu bindal ko ab lettre Seexul Xaadim moo ko doon wax sëriñ Mbàkke Buso di bind bi ñu noppee Seexul Xaadim moo signé ca lettre ba ngir wane ne moom moo ko bind mu yónni sëriñ Mbàkke bu sa gànnaar ngir mu dem jaaleel ko Cheikh Sidiya Baba ñu teewlu lettre bi xayaat wa jaxala kulla nafsin daa'iqatul mawt والصلاة والسلام والتحية والإكرام على فرد كل مسلم على الحوض سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد بلغنا تهدم هذا الركن القوي من أي أركان الإسلام وفاة مفخر الصالحين والعلماء الإمام الشيخ سيدي بن محمد بن سيدي رضي الله تعالى عن الجميع وأرداهم فاسترجعنا ورحمنا وتأسينا بمن تقدمنا وعزينا أنفسنا وإليكم كتبنا وجهنا حامله مريدنا wa ibn xaalina taxziyatan taxumul aamata wa taxussul xaasa ahsanallahu taala azaakum wa azama ujurakum wa gafara li mawtaakum amin wa narju min allahi tabaraka wa taala an yudiima isbaala hada sitr wan jibaara hada alkasr bi jami alkalimati wa tawqiiri alsigaari lilkibaar wa rahmati alkibaari lilsigaar wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dalika min azmi alumuur wa kataba musalliman daa'iyan alxaqiir almusuubi mustamliyan min alseex alakbar walkibrit alahmar alxadim makki radiallahu taala anhu bin nabi makki sallallahu alayhi wa sallam haama bam fa sin lettrub njaalub seex sidiya baaba boobu nag sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi ko bind bisub gaawu fukki fan ci weer wi di weeru rajab ci atum 1342 ci gàddaay gi dëppoo woon nag samedi 16 février 1924 ci la seexul xaddim woolu sëriñ mbàkke busoo bind ko ci la ko yónni itam mu dem gànnaar jaale ji seex sidiya Roqiya Baaba njaareem googu ba tey kii di sëriñ tubaa seexul xaddim woolu woon na fa kii di sëriñ mbàkke buso ngir di ko bindloo baneen lettre muy keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddim di sàkku jumaay tuubaa ngir gouverneur bi man koo may autorisation ngir ñu mën a amal lii di jumaay tuubaa lettre bi seexul xaddim bindoon lii di gouverneur bi sëriñ mbàkke buso la ko bindloo woon ngir mu bind ko loolu ci atum 1925 la ginnaaw bu sëriñ mbàkke buso bindee lettre bi ba noppi nag seexul xaddim moo signé sàkku autorisation jumaay Tuuba ci gouverneur bi min Jurbel si ula jumaa di yey ni ama mille trois cent quarante quatre hijri hada wa innahu ahsanu tahiyatin wa akmaluha kama taliqu bi janaabi al-fahm janaabi naa'ibi ad-dawla as-saa'ida ala ad-duwal al-mu'tabara as-saabiqati al-uwal alaa wa hiya al-faransaawiyya az-zaafira al-maajida al-baasila bi Ndar wa maa jaraa majraa يوجب ما بعده أني أعترف لكم بزيادة الشكر والناس كلهم كذلك بما عملتم الأرض ومهدتم الأمن حتى تمكن كل ذي حرفة بحرفته كما أحب حارسهم وراعيهم حاضرهم وباديهم ولذلك atlub min siyaadatikum an abniya masjidan jaamian fi watani al asli alladi huwa masqatu rasi wa ruusi abaai almaadin li anna min mataalibi shar'ina al islami an yakuna fi kulli baladin yatawattanuha jamaatun min almuslimin laa yanwuna arrihlata minha abadan an yabnuu fiha masjidan jaamian yuqiimuna fiha aljuma wa lidalik lama faraghtu min albinai aljurbiliyi taaqat nafsi ila binai dalika li annahu huwa al awlaa bitaqaddum lima dakartu awalan anna alxaala iqtada taaxirahu fa axarnaahu والمرجو من سيادتكم أن توجهوا إلينا صانعا حاذقا ناصعا لا يخون ولا يغص ويأخذ منا مؤونة تامة إن شاء الله baaligatun ma balaxat wa hakaza kulluhu ba'da isnikum al-ma'mun bal al-maqtu' lima ahidna fikum min raf'i al-islam wa tasbit ahlihi daama majdukum wa baana faxrukum wa illa fala ra'ya illa sa'iba ra'yakum wa salaamu ala man ittaba al-huda mustaktib hadha al-kitab katib hadhihi al-huruf ahmad ibn ahmad habibullah jumaa jooju ku baax ki doon sàkku ci tubaab bi autorisation bi tubaab bi mujj na ko jox ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci atum bi ñuy yóbbu lettre boobu sëriñ Mbàkke Buso ngir muy sàkku autorisation jumaa ji Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke Sëriñ Mbàkke Buso ak Maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñoo yóbbu lettre bi ci ci lool nag la sax saa bu ko Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim soxlaa woolu ko mu nekk nag ci dëkkam bi mu sanc di Tuubaa Gédé ci atum 1918 ba ni Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim génnee àdduna ci atum 1927 mu fab léppam jébbalaat Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke te wéyal na ndigal loolu waajuróom wi jàppe woon kii di sëriñ moom itam heure bu ko soxlaa woolu ko ci wàllu li nga xam ne nii moom mooy xam-xam ak di ko liggéeyloo kóolute googu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim amoon ci jëmm jooju di sëriñ Mbàkke Buso taxoon na kii di Cheikh Modou Moustapha Mbàkke faboon rakkam di soxna Moominatu Mbàkke jébbal ko ko ba am na kii di sëriñ Mbàkke Buso lii di ak njaboot ñu ràññee ci soxna Barakatu Buso akuñ doon wax sëriñ Ismaïla Buso sëriñ Mbàkke Buso itam jàngal nañu takku ci yoonu murit ñu ràññee ci sëriñ Cheikh Coro Mbàkke sëriñ Masamba Mbàkke sëriñ Habibu Mbàkke ak doomu xadijatu mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ci yoonu murit wi ci at mi di atum 1929 sëriñ moor faati turé di aji sëriñ bu buso bindoon na lettre jox ko ko ngir bu demee mu jox ko kilifay naar ya fa nekk ngir sëriñ moor faati turé bañ am benn jafe-jafe ma ngay wax ca lettre ba di ko yóbbante kilifay naar yi di leen wax ne gor mi ngi nii mbokk mi ngi nii ñun ñi fi ñëwoon daaw aj sikat kii di ñëw suñu dereet la te ku sàmm diineem la na ko fonk ñu teewlu ci atum 1929 bi Touré di aji lettre bi ko Serigne Mbacke bu sa joxoon ngir bu demee mu bañ fa am benn jafe-jafe alhamdulillahi allati ja'ala al arwaha junudan mujannada fa ma ta'arafa minha iktalaf wa ma tanakara minha ixtalaf salaatu wassalaamu ala afdali man wa axa fi'atayni fasaarata ka aqrabi al ghurabati wa ta'arafa bihim adamimun satta kulluhum suuq ghuraba wa ba'du fa aska tahiyatin wa anna salaamin yaliqaani bijanibi saadaati al a'yaan al muttashifiina bi awsaaf al kumal الأدباء والقدماء في هذه الأوان ذوي المناقب الطاهرة والمصايا الزاهرة سيدي الشيخ الصالح والشيخ عبد الله والشيخ أحمد خير آل مرشد الأمجد موجبه أوجب الله لنا ولكم الغيرة وعافانا وإياكم وصفى لنا ولكم الميرة سؤالنا عن حال من حفه مجلسكم السني الأهل والإخوة والأولاد خاصة والإخوان والجيران عامة وخصوصا أخاكم المشروح خفف الله تعالى عنه وابن أختكم السيد الحسن بن حمزة الفلاني ولقينا هنا السيد حمزة المذكورة مستفسين بلقائه فهو على خير ونخبركم بوصولنا جميعا إلى الأهل سالمين وغالبين المؤمنين كما دعوتم لنا بهما فجزاكم الله تعالى عنا غيرا وأدامنا وإياكم عليه وجعلنا من المخصوصين لديه فقد كنا تديد الاشتياق إلى الحج والعمرة ثانية لكن الأثقال والحوائق عاقدنا عن ذلك فابننا حامل البرابة ذا الغرابة منا محمد توري ابن شقيقة الشيخ إلهاج سيدي المختار المبكي وابن خالة ابني المحب الحاج مولاي علي المسعودي وابن عمة الشيخ الحاج محمد الخاضر المكي وهو أديب قريب موافق في كل ما هو فيه خير ومغالف في الجد فابذلوا جهدكم في الاحتفال به وقوموا في مصالحه مع أحسن ملاطفة ومعاملة كما هو دأبكم مع أمثاله ولا تنسونا من صالح دعواتكم المرجوة الإجابة أمام خير العباد محمد بن محمد المشهدي ci atum 1929 googu Serigne Mbacke Bousso bindaatoon na beneen lettre doon wax Serigne Mor Faty Touré mu joxal ko ko ko soxna suñuy wax soxna xaddi jatu boole ko juróomi junni di ko ko jox addiya di ko xamal ne nag dama bëgg nga fonkal ma kooku ndax kat suñu jarbaat la soxna xaddi jatu mii nag hôtel bi ñu daloon ñoom muy sëriñ bu buso maam cheikh anta mbàkke ak cheikh mamadul faadal mbàkke bi ñu demee màkkatal mukarrama ci aj ga moom ñii moo leen doon toppatoo ñu teewlu lettre bi wasalaatu wasalaamu ala afdali man wa rama aljamrat baada ma saa wa waqafa ala aljabali wa daa wa ala alihi shurafa wa ashaabi lunata

وبعد فإلى السيرة السالحة الصفية البرة خديجة المرقدية المرضية مناخ وفد السنغال الحجاج بالحرم الشريف الخائمة بأمور الطائفين منهم حول المسجد المنيف بارك الله تعالى وداعف الأجور ووقانا وإياها فر كل من يجور وبعد السؤال عن الحال حال الأولاد والإخوة والعيال إعلامك بأني على غير ومشتاقون إلى تلك البقاع الطاهرة ذوات الخصوصيات الباهرة وقد عاهدنا في هذا العام عوائق الثمن وجهنا إليكم هذا الغريب محمد توري وهو ابن دقيقة الشيخ إلى سيدي مختار المكي وابن خالة المجدي الهاشمي مولاي علي المسعودي وابن عمة الشيخ الهاشم محمد القاضي المكي ليحجر البيت الحرام ويسور روضة خطوة الكرام عليه الصلاة والسلام فاعتنوا بشؤونه وتحملوا جميع مؤونه فقد ارتحلت من بلدكم الأمين إلى مودعتكم بسبب استحجاج قوم لأنهم وجدوني في الحرم فعجلوا علي الخروج إلى جبل لركوب السيارات فلم يكن الوقت لموادعتي وكنت إذ ذاك عازما على إهداء شيء إليكم ولو غلة ولذلك جعلت وأوقف يدي الحامل خمس جنيهات هدية لكم أرجو قبولها منكم وأسلم خاية السلام على الولد المجيد السيد إبراهيم الحبيب وشقيقته خرجة وأخته وأخواته وأخواله محمد وأحمد وإخوتهما وجاركم الحاج عمر تال وجميع الإخوان والجيران وأوصيك يا برة بأن تأمري ابنك بوهان أن يلازم أن يلازم سنة السادات المالكية والنقل عنهم والأقل منهم حتى يبلغ في مسند والده المرحوم السيد عبد الواحد فبذلك تتم إمامته لأهل السنغال وهم مالكيون واختلاف المذاهب ربما يؤدي إلى التناكر والتنافر والعياذ بالله قصها وصية ناشهم آمين محمد بن محمد المشهد ñetteelu lettre bi ñu leen di dégtal ba tey sëriñ Mbàkke Bousso moo ko yóbbante woon sëriñ Mor Fati Touré doon ko ko joxloo ko ñuy wax Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima nag ci ñi yoroon commission aj gi la foofu ca Màkkatal Mukarrama bi sëriñ Mbàkke Bousso busa demee màkkatal mu karama dafa wóllërante woon ak moom cheikh ibrahima sax doon na wax sëriñ mbàkke busa ne ko dinaa ñëw sénégal gane si la cheikh ibrahima nag mujjul ñëw sénégal ba aj gi del si waat sëriñ mbàkke busa bindoon lettre sëriñ mor faatu ture ngir mu jox ko ko sëriñ mbàkke busa ma ngi koy fàttali di ko wax ne ngan gi ma digoon de ba nëga ni maa ngi koy xaar ngir ñëw goo a ñëw fii ci réew mi di sénégal waaye xam naa ne jafe-jafey aj gi ak coono gi rek moom moo la jàpp la namm laa te maa ngi lay jaare lu bare bari am naa sax ay bagage yu ma fi teewaloon ko fi waaye jëmm joodu ji ñëw sama jarbaat la te dama bëgg mu indaaleel ma ko ñu teewlu lettre bi sëriñ Mor Faty Touré yóbbaale woon sëriñ Mbàkke Bousso doon ko ko joxal Cheikh Ibrahima alhamdulillahi lazi sarafa ahli alharamayn sharif sharifayn wa qassahum bi mujawarati afdali alxalqi wa sayyidi alkawnayni wa salaam allahi taala ala man taabat bihi taybatuhu almunawwara wa man isdaana bi bahjatihi rawdatu almutahhara wa ala alihi saadaati alnuqaba wa shaha bihi aljihaadistu alnujaba amma ba'd fasid ahsana tahiyatin wa asna وسلام بالتبجيل واحترام إلى فيدي ومولاي الشيخ الحراس وفقامة الشيخ الإسلام قلي وحبي الهمام الفصيح البليغ الشيخ إبراهيم فالموجب بعد تقديم تربة نعالكم والسؤال عن سائر أحوالكم إشعاركم بأننا وصلنا بحول الله وقوته لبلدنا ظالمين وغانمين ووجد الأهل والجيران على خير وعافية وأصفى ميل ونعمة ونعمة ضافية ولم نزل نشتاق إلى لقاء من توجه من ناحية بحجكم وورود مبحوث كتابكم حتى ألقي إلي الكتاب الكريم وقبلناه بالتعظيم وذلك يوم لنا يوم عيد وسرور وفرحة وحبور فأنشأنا الشعر نقول فإني يوم وافاني كتابكم ورحت لا فرحة المفكوك من شفدي فلا برحتم على بشر النفوس بكم من الإله دواما أكسل السفد وقد كنا نتوقف ونرجو إنجاز ذلك الوعد من زيارتكم لهذه الجهة فلا فلما قرب أشهر الحج علمنا أن ذلك لا يمكن استغلالكم بأمور الغرباء الواردين فالله تبارك وتعالى يمن علينا بلقائكم آمين وهذا عامل من قريب قرابتنا لأن الشيخ إلهي سيدي المختار المكي تقيق والدته وهي قالت إثني أشيركم الحاج مولاي علي المشربي وحمة الشيخ الهاشم محمد الفاضل المكي توجه إليكم ليحج البيت الحرام ويصور خير الأنام عليه الصلاة والسلام فاحتفلوا به وابسلوا جهدكم في اعتناء بشأن yi kama yaadu aadatukum ma amsaalihi Muhammad bun Muhammad al Mushabi lu ko jiitu ci atum 1928 boobu sëriñ Mbàkke Buso demoon na Màkka àndoon ak maam Cheikh Anta Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mu Mulaay Buso ak moom moom ak ñu bari ci yoon wi di yoonu Murita bis boobu mu ñibbisi woon sax ci atum 1928 la ko njabootam di fàttaliku ci Tuubaa Gédé sëriñ Mbàkke Buso wiy des Gédé nag di liggéey ba ni mu génnee àdduna ci atum 1946 sëriñ Mbàkke Buso sanc na sax lii di ay dëkk ñu ràññee Lasar ci atum 1902 Guédé ci atum am na dëkk bu ñuy wax daaru Maram mi ngi ci wetu Baxdaaduk Cheikh Abdou Khader Mbacke am na beneen dëkk bu ñuy wax daaru Sakkoor moom itam ba tey mi ngi ci wetu Baxdaaduk Cheikh Abdou Khader Mbacke am na beneen dëkk bu ñuy wax Xadaa Equ Al Fadaa Helu dëkk boobu mi ngi ci yoonu Touba Belal wi soo dawee lu tolloo fukki kilomètre ak benn ci sa loxo càmmooñ foofu lay tollool su siitin di Touba Aliya Serigne Mbacke Bousso moo ko moomoon di taxawalaat jumaa ji la ko ko jébbaloon ak yeneen ak yeneen i daara yu sëriñ mbàkki buso taxawaloon di yar ak di jàngale jàngale googu mu doon def moom moo taxoon sax mu géeju woon lool ci wàllu xam-xam ba tax na bind na ay téere yu takkoo takkoo takk moom jëmm jooju di sëriñ mbàkki buso moo xam ci wàllu géographie ak géomètre calendrier boo xam ni ci jant bi lay dox ci wàllu arab ak lii di wolof jamono jën muy doxe muy jaww ji ay téere yoo xam ne ci alxuraanul karim la ko génnee wàllu xam-xam nag ku ci géeju woon la moom jëmm jooju jooju ba tax na ñu bare baree bari ci yoonu murit jàngal na leen ba ku demoon ci njaboot gi ba gis mbindum sëriñ mbàkke busoo danga waaru ndax jëmm jooju ni mu nekkee woon kiimtaan ci wàllu li nga xam ne ni moom muy bind kiimtaan googu mu nekkoon ci wàllu bind ni la fonke woon nag lii di jàmm suñu boroom ba tax na santaaneb suñu boroom bi daana ko def ba ci dëkk boobu di gedde bu fa nit ma saa jàdd ci wàllu yoon lii di yari yoon sax danañ la ko duur ndax bari nañu ko fa dóor foofu ci gedde ci nekkinam ndax kat loolu la suñu boroom santaane te moom daana ko googu mu ko daa jëfe boole kook ragal suñu boroom gum ragal suñu boroom loolu nag seexul xadim xamoon na ko ci moom ba tax na mag ñu bari buñ mësaa génn lii di àdduna ci nekkinu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim daana woolu sëriñ mbàkke buso ngir mu dem taxawu leen ñu ràññee ci sëriñ daaru asan njaay sëriñ jéeri waa daan sugu mamoor jaara magi mag sëriñ makumba kebe boroom kër kàbbu cheikh ibrahima saar njaañ boroom jasaaka sëriñ ndaam abdourahman lool ak ñeneen ak ñeneen ba ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim moom mi daj dëpp gi keroog bi mu génnee àdduna ci atum 1927 sëriñ Mbàkke Buso moom moo ko taxawu noonu itam ni la ko wéyale woon ba ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke bari na mag ñu génn àdduna ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke sëriñ Mbàkke Buso moom moo leen taxawu ndax kat noonu la ko Seexul Xaddiim daa sante loola itam tax na jëmm ji di sëriñ Mbàkke Buso am na ay turndoo ci ëttub ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim ndax Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tuddee na ko ñetteelu xalifaam di sëriñ Haboo mi fi toog sëriñ Mbàkke Buso lañ ko tuddee Cheikh Murtada doomi boppam itam kenn ku ne tudde nga ko doom moo tax ay turandoom ràññee nañ ci aboo sëriñ mbàkke ak muhammed jëmm jooju di sëriñ mbàkke buso mi ngi génn àdduna nag ci atum 1946 ci feebar bu yàgg bu ko tëral ci tuubaa gede googu ci bis bii di bisub samedi fukki fan ak juróom benn ci weer wi di maamu koor ci atum 1365 ci gàddaay gi bisub samedi fukki fan ak juróom benn ci weer wi di maamu koor ci atum 1365 ci gàddaay gi dëppook muy samedi 18 1946 samedi 18 mai 1946 ci dëkk boobu di Touba Guédé ñu woolu Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke mi toogoon toogaayu Xaadim Rasuul moo ko taxawu moo ko jullee ñu denc Sëriñ Mbàkke Buso ci Guédé ay xalifaam nag nii la tëdde moom Sëriñ Mbàkke Buso ci atum 1946 ba atum 1971 di Sëriñ Moodu Buso mooy ki ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifaam moom Sëriñ Mbàkke Buso Sëriñ Mohamadou Moulay Buso la ci atum ba 2023 ñetteelu xalifa sëriñ mbàkke buso sëriñ muhammadu baaxeer buso la ci atum 1983 ba atum 1993 ñeenteelu xalifa sëriñ mbàkke buso mooy ku ñuy wax sëriñ njaaña buso 1993 la ba 1996 juróomeelu xalifa sëriñ mbàkke buso mooy sëriñ maxtaar buso moo toog ci atum 1996 ba 2010 li ñu tudde nag doomu sëriñ mbàkke buso yu góor yi jeex tàkk ci kaw suuf sët yi tàmbulee wuutu seen maam ja sëriñ mbàkke buso sët bi njëkk a wuutu maamam mooy ku ñuy wax sëriñ ibrahima buso doomu sëriñ muhammadu baaxeer buso la moom sëriñ mbàkke buso sëriñ ibrahima buso moom moo toog xalifa ci atum lan 2010 ba ci lan 2014 ñaareelu xalifa kii di sëriñ mbàkke buso mooy sëriñ ceerno buso lasar ibnu sëriñ mulaay buso moo toog ñaareelu xalifa sëriñ mbàkke buso ci lan 2014 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te yokk lii di wér gi te yàggal ko ci na suñ boroom guddal fanu doomu sëriñ mbàkke buso yi fi desandi muy soxna barakatu buso ñu gën koo xam ci soxna gàddu buso ak soxna asiyatu buso bintu sëriñ mbàkke buso yàlla na leen fi suñ bàyyi ndax ñu leen di xoole sëriñ mbàkke buso sëriñ mbàkke buso nag am na bis ñu koy fàttaliku muy lu ñu tudde lii di ak màggal muy fukki fan ak juróom benn ci weer wii di weeru tamxarit di bis bi mu jógee woon màkkatal mukarrama aji woon ci atum 1997 la juróomeelu xalifaam bii di sëriñ maxtaar buso taxawal lii di bisub sëriñ mbàkke buso Bousso lu jiitu bis boobu nag am na ay daayira yu daa màggal sëriñ Mbàkke Bousso foofu ci Gédé tudde woon ko sant sëriñ Mbàkke Bousso muy daayira bu ñuy wax Masaalikul Jinaan ci atu 1997 nag la ci njaboot gi dugg jàpp bisu fukki fan ak juróom benn di bis bi sëriñ Mbàkke Bousso jógee lii di màkkatal mu karama kon bis boobu la njaboot giy fàttaliku ci Tuubaa Gédé ñuy ñaan ci dara jëy sëriñ Mbàkke Bousso doomu nijaayu Seexul Xaddiim ba yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk lii di leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu bàyyi amiin tam gim fi bàyyi amiin tam gim fi bàyyi amiin tam gim fi